syndicat nag damay faral di tooñ léeg mais les syndicalistes xamul train bi ñëw à l'heure à la limite euh, ça l'intéresse peu wala boog bu waxee ni train bi ñëw na à l'heure xëy na travailleurs mën nañ ko ŋàññ wala am nuñ ko gisee donc syndicat li mu baaxoo mooy revendiquer un syndicat qui ne revendique pas n est pas un donc je comprends parfaitement le cahier de doléances je comprends aussi les revendications yi nga xam ni def nañ ko je note également avec beaucoup de de plaisir que vous avez fait preuve de responsabilité ndax teg ngeen ci seen loxo ay jéego ak ay yéene parce que àddina ñaar la da ngay yéene jëf bi ñuy jëlee service décliné nañu suñu yéene wax nañ fan lañ bëgg a jëmee ONAS ci wàllu politique sociale waaye bi ñu toogee itam tàmbali nañoo jëf ñëpp teg seen bët te jëf bi ñëpp gis nañ ko kon ñi ngi ci loolu te incha allahu taala ci loolu la ñuy fas yéene di dox d'abord parce que jàpp naa ni structure bu bëgg am résultat bëgg am ay référence bëgg a wane li muy def comme je l'ai dit tout à l'heure faaw mu am ay liggéeykat yu engagé yu nekk dans de bonnes conditions loolu sama conviction la waaye sama beneen conviction aussi mooy mais ay nit mënoo leen liggéeyloo di leen xëyloo heure leen wàcculoo heure te doo leen mettre dans les meilleures conditions possibles wala boog doit être mettre dans les conditions yi nga xam ni mooy les conditions minimales pour ñu mën a def seen liggéey loolu sama conviction la et conviction boobu je le partage avec tous les membres du comité de direction amul benn codir bu ñu dul bu ñuy def te duñu régler des questions à caractère social parce que jàpp naa ni sociale ci biir liggéey bi la bokk bu amul entre entraide amul solidarité amul dimbalante amul jéem a xool nan la ñuy def ba puus ñi ñi ñi fi ne ñi nekk ci kaw puus yi ci suuf bu ñu deful loolu du ñu mën a dem en tout cas man partout où je suis passé j'ai essayé de développer une politique sociale bénéfique pour les travailleurs ak pour l'ensemble des personnes yi nga xam ne ñoom laa ñoom laa nekkal kon loolu dama bëgg ñu partager ko ñun ñëpp ñu ñu xam ko ndax message ak discours dafa war a leer structure état dafa nu muy doxe bi ñu ñëwee def nañu déclinaison une politique sociale mettre nañu en place un comité de réflexion def ci ay nit ñu ciy liggéey en toute transparence boole ci l'ensemble des délégués du personnel ak les représentants des syndicats ñu liggéey génne ay propositions yu am solo yoo xam ne ci bëri wax nañ ko fii et plus de quatre-vingt-dix pour cent ou quatre-vingts pour cent des propositions qui ont été faites je les ai toutes validées am na ci yoo xam ne sax maa ko ci yokkal sama bopp c'est ça la vérité l'assurance maladie n'a jamais été une revendication parce que y avait IPM e amoon na fi man maa fi indi assurance maladie aujourd'hui la procédure est en cours je pense que c'est au niveau de la DCMP Et sous peu, effectivement, tous les agents de l'ONAS pourront bénéficier d'une assurance maladie comme ni muy xewee ci yeneen structures yi am na yeneen proposition ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko c'est pas le lieu ici ñu koy wax mais li am solo mooy le directeur général que je suis à la volonté de mettre en place une politique sociale laquelle politique sociale dougal nañ ko ci accord d'établissement bi ñëpp gis nañ ko validé nañ ko indil nañ ma ko te incha allahu taala danaa ko signé validé ko ñu mën koo doxal c'est ça la vérité maintenant moi je suis un légaliste loo gis dafa am procédure ma profite bi pou euh, saluer et remercier le président du conseil d'administration quelqu'un l'a dit tout à l'heure bu fi nekkoon sanawet lay toog mais ñëpp xam nañ ni il est en mission à l'étranger moo tax toogul fii tey Mais toutes ces mesures ont déjà fait l'objet de discussions et incha tala taala danañ ko jàllale ci nu mu gën a gaawee ci conseil d'administration yi nga xam ni conseil d'administration moo koy validé yi nga xam ni dafay dépasser comme ni ma ko waxee woon la compétence du d d'administration yu ci mel ni ay treizième mois ak yu mel noonu nga xam ne ci beneen niveau lañ koy validé fañ ko war a doxee fañ ko war a fañ ko war a pousser ñaan ñu defal ñu ko incha allahu taala danañ ko dox ba mat sëkk ba travailleur yi profité ci il faut que ça soit véritablement clair aujourd'hui loolu laa mën a wax ci accord d'établissement ndax loolu lu ci baree bëri li ngeen wax fii mi ngi ci biir accord d'établissement bi que ce soit euh, la prime d'assainissement de risque euh, yu ci bëree bëri mi ngi ci biir mi ngi ci biir euh, accord d'établissement s'agissant des nouveaux points parce que wax nañ fii le statut de l'assistance de de direction wax nañu euh, le quart plan loolu yaakaar naa ni bokkul dugaluñ ko ci accord d'établissement bi je parle sous le contrôle du DRH s'agissant également de oui mooy la finalisation du compte du contrat plan le local équipé le recrutement des prestataires yooyu laa bëggee waxtaan ak yéen yi nga xam ne nekkul ci accord d'établissement bi moom laa bëggee waxtaan ak yéen xaw ma ndax yéen ak may dégg faudrait qu'on s'écoute et qu'on s'entende structure boo gis muy dox ci àddina dafa am lu ñuy wax un plan d'action plan d'action bi li koy lal mooy ay moyens yi mu yore ak ni mu bëgg a doxale plan d'action boobu ONAS structure la bu mag a mag boo xam ni moom mooy exécuter la politique d'assainissement de sa pays moom la état bi dénk lépp luy assainissement ci biir réew mi état di ko jox ay moyens waaye mbokk yi dañu war a xam ni moyens yooyu du ay moyens yu ñu mën a yu ñu mën a yokk num ñu neexee déedéet man directeur général sama mission mooy fexe garantir la pérennité de l'ONAS maanaam fexe ba ONAS nekk fi ni ma ko fekkee woon ma yokk ko te bañ koo wàññi sama mission mooy ressources yi ONAS di am ñu yokk ko dolli ko ba mu gën a bari te mission ressources yooyu du ay ressources yooyu man di du ay doo dem di tibb benn ressource la ñu am principal muy la redevance de l'assainissement mooy li ñuy di fay seen facture yi ñu koy jot te redevance boobu gis nañ ni liñ ci daan am amatuñ ko ci dafay wàññeeku kon kon ñun suñu combat mooy fexe ba yokk les ressources de l'ONAS ñi ngi ci dégg ngeen démb ci conseil interministériel le premier ministre a dit publiquement que nañu na état du Sénégal yokk les moyens de l'ONAS loolu ñu ciy sant gouvernement bi di ci sant son excellence le président de la République Macky ndax wax nañ ko léegi li ko yitteel intéressé ko moom mooy le président de la République mooy le sous-secteur de l'assainissement jëm ci kanam jëm ci kaw ndax daf ko inscrire dans son plan Sénégal émergent notamment dans l'axe 2 du PSE lu mu fonk la je ne reviendrai pas sur les les projets et les financements yi nga xam ne état def na ko le secrétaire général monsieur Kane le coordinateur ko léegi kon nag il faut ñu xam ni amuñu ay moyens yoo xam ni dañuy dem di ko di ko yokk tout temps waaye dañuy def ay pexe aujourd'hui ñi góorgóorlu ba xëy na ci wàllum électricité mën nañu fexe ba cent million yi ñu doon fay tous les mois wala lu ko jege dañ ko fayati ndax am nañ ci ministère des finances une possibilité d'avoir deux milliards yoo xam ni dañ koy dugal dans le cadre de la dette croisée loolu tey tey tey yaakaar naa ni valide nañ ko avec le ministre des finances je parle sous le contrôle du DAF am nañ yeneen proposition ak yeneen possibilité yoo xam ñi ngi koy ñi ngi koy lijjanti di ko toppatoo au niveau du ministère des finances et du budget ndax jàpp nañ ni travailleur du ONAS liggéeykatu ONAS il faut état jàppale leen il faut état financer leen ñun suñu objectif mooy fexe ba régler les équilibres ñun ay financier lañu ñu ñuy def ay dépenses yoo xam ne ëllëg dañuy indi ay problèmes yoo xam ne dañu naan ah nangam nangamkat moo fi nekkoon di problème yi amee loolu du ma sa am moi j'ai un tableau de bord même booy recruter nit da ngay xool ndax masse salariale bi liñ ci waxoon ndax mën na ko wala mënu ko booy jël ay charges wala ngay def investissement da ngay teg ay tableau de bord xool ndax charge yooyu investissement yooyu du du mettre en péril du mettre en péril la pérennité de l'entreprise loolu mooy gestion donc dañuy teg table de bord yi di xool kon nag heureusement maa ngi sant yàlla bi nga xam ni am nañu un syndicalisme en tout cas des syndicats responsables yu comprendre loolu du ñu topp demande les les avantages di laaj avantages yi di laaj avantages yi ba porter préjudice à l'entreprise loolu ñoom duñ ko nangu waaye man directeur général bi nga xam man lañ fi teg du ma ko nangu cela di li ngeen laaj les revendications yi wax fii c'est des revendications légitimes légitimes une ambulance ça j'ai déjà donné mon accord depuis très longtemps j'ai donné mon accord cest dire que aujourd'hui bu dee ñëwul c'est c'est pour des procédures wala yu mel noonu la mais l'ambulance c'est déjà réglé euh, ki fi ñu ko war a jëlee xam nañ ko ki ko war a joxe xam nañ ko c'est déjà c'est déjà acté et je je donne instruction d'ailleurs au directeur de la planification des études et des travaux de finaliser cette procédure rapidement parce que c'est à lui que je l'avais confié mais dans le courant du mois de juin au plus tard que cette ambulance-là puisse être disponible ñu gaare ko fii que tout le personnel xam ni c'est une réalité qui est là Donc ça, c'est une instruction formelle que je, que je, que je voudrais donner dans ce, dans ce sens. Et je sais que Yang euh, moi-même, j'ai discuté avec euh, les, la partie intéressée. Euh, je, je, sais que c'est une question de jour. Euh, il faudra peut-être accélérer la procédure pour ñu mën koo jot ndax ñu ngi jëm ci nawet te ku ne xam ne nawet day ànd ak feebar day ànd ak ay jafe-jafe donc euh, war nañu mën a am ambulance ça je pense que c'est la c'est la moindre des choses yu ñu war a jafal les travailleurs de de l'ONAS pour les secrétaires oui j'ai entendu cette euh, cette doléance wax nañ ma ko effectivement fii au niveau de ONAS je pense que les secrétaires du ñu du ñu dépasser trop seen seen statut elles n'ont pas la possibilité en tout cas d'avancer et de dépasser fi ñu fi ñu nekk bon je pense que cette situation n'est pas spécifique à, à partout dans les en tout cas dans beaucoup de structures noonu la généralement boo nekkee secrétaire à moins nga dem def une formation def un concours ou bien nga am beneen possibilité d' bi nga xam ni loi ak réglement yi permettre nañ ko euh, prévoir ñu ay dispositions particulières pour loolu mais je suis ouvert à la discussion et je demande au DRH ici présent mais de d'engager la réflexion mais pour voir comment le permettre de d'évoluer parce que aussi ay jàmbaar lañu secrétaire yi wax nañ ko les secrétaires en tout cas j'en ai quand même fréquenté ici bi ma ñëwee euh, j'en ai fréquenté deux ou trois ñoom laa jot a liggéeyal de façon de façon façon directe et permanente mais xam naa li ñuy daj xam naa ne jàmbaar lañu ñu bëgg seen liggéey ñu fonk seen liggéey lañu donc c'est pas de la démagogie je marque mon accord pour examiner cette question-là de façon précise en relation avec la DRH sur le local équipé oui ça, ça n'a jamais demande, en tout cas portée à mon attention. Euh, comme vous le savez, fekk nañu fi ay travaux au niveau du au niveau donc du bâtiment qui est là. J'ai demandé au DAF de prendre en charge les travaux et d'accélérer tous de, de les accélérer avant hivernage bi di commencer. Il y a trois jours, j'ai effectué une visite et je constate avec plaisir qu'effectivement le, le, le niveau d'avancement est très élevé. J'avais donné instruction pour que ñu créer fa une autre salle de réunion bi nga xam ni dafay nekk une salle de réunion de tous les travailleurs nga xam ne lu mën a xew fa lañ koy mën a defee euh, mën a waxtaan comme ni ñu koy waxtaanee nii une très grande salle le le site a été trouvé le local a été trouvé euh, nga xam ni on a pas besoin d'aller sortir ou d'aller dans d'autres salles e et tout le personnel effectivement comme je l'ai dit mën nañu discuter def des réunions syndicales de réunions sociales de réunions de l'amicale même ay événements mën nañ ko fa def sans pour autant xëy na luy ay bâche bu dee événement yu ndaw la mais bu dee lu lu lu lu toll nii la wala lu ko ëpp mais j'estime que effectivement il faut trouver une bâche comme celle-là je pense que on a commencé nañ tàmbaloon tàmbaloon léegi et il faudrait continuer à le faire moi je n'y vois aucun inconvénient et je n'y vois aucune difficulté léeg am ñu ma tooñ sax ne ma mais déjà yow sa kër gi léegi commencé na bëri ay tente de commencé na bëri <laughs> ay bâche mais écoutez moi je préfère ñuy tente personnel bi di daje di waxtaan di gisee que mais que personnel bi nekk kër nag ku nekk nekk sa biir bureau sans pour autant dañuy gisante moi je préfère de loin que de temps en temps que les gens di teg bâche ñu toog waxtaan ça permet que ñi nga xam ne xamante ñoon ñu xamante ñi nga xam ni amuñu woon ay rapport affectif ñu mën am ay rapport affectif mais ça crée de, de un cadre de d'échange je préfère cela plutôt que voilà ku ne gaare oto wala ku nekk dox avance dugg dans dans un bureau tëj bu ngoonee nga ñibbi je pense que aussi la politique sociale euh, bu ñu koy wax mooy créer les conditions yi nga xam ne nit ñi dinañ jaxasoo dinañ dinañ gisante ça c'est extrêmement important et sur cette question précise je demande au DAF ci espace boobu nañ fa prévoir un cadre en tout cas un local isolé je dis bien isolé pour les syndicats mu nekk seen bureau ñu mën fa di daje di waxtaan di def seen liggéey nu mu leen nu mu leen neexee ça c'est une institution que je donne et il faut la il faut l'étudier l'examiner avec l'entrepreneur je pense que l'espace est assez grand mën nañ fa génne un local pour pour def ko ko un bureau ça je pense qu'il faut quand même le le le le le le noter maintenant sur les autres sur les autres problèmes comme j'ai dit mi ngi nekk dans le l'accord d'établissement et li ma ci wax wax naa ko ci ba mu des nag ñaar benn bi mooy la question des prestataires bi ci des mooy la question des terrains bi ëpp solo ci lay mooy la question des terrains pour les prestataires je dois quand même dire que yéen ñëpp seede ngeen ni wax dëgg yàlla xëy na salaire prestataire yokkuwul xëy na avantage yi yokkuwul lu bari waaye ñi ngi góorgóorlu ak ak suñ kemtalaay kattan pour améliorer seen condition de vie et d'existence ndax améliorer condition de vie et d'existence weesuwul ngay fay salaire à temps et à date dañuy waxtaan rek parce que euh, syndicaliste moom du wax li li li jot a def def je le comprends c'est la théorie des droits acquis dans une autre vie j'ai aussi été voilà plus ou moins syndicaliste je je comprends un peu ce qui se passe mais nañu avouer ni am na ay amélioration jël naa ay dispositions yu bëree bëri sur le plan social pour ñu intégrer leen xam la question des savons ak même sur d'autres questions que je ne peux pas me ko rappeler wu fii mais j'ai demandé à ce que ñu intégrer les prestataires mais dafa am mais il faut ñu waxante dëgg c'est une situation qu'on a trouvée ici l'effectif des prestataires moo ëpp l'effectif du personnel permanent directeur général bu leen jël bu jël engagement wax leen ni mën na recruter tout les prestataires wala comme il l'a demandé mu recruter ci un nombre conséquent xaw ma nu mu ko tuddee ban adjectif la utiliser daf leen di wax lu leen neex rek ce n'est pas possible de recruter tous les prestataires ni d'en recruter un nombre conséquent comme vous le dites conséquent mooy nga recruter lu bëree bari parce que boo nee conséquent mooy nga jël au moins genn wàll gi ça il faut qu'on s'accorde que loolu mënul nekk pour des questions budgétaires et pour des questions de sécurité et de pérennité de l'ONAS et de respect de la masse salariale. En revanche, quand j'ai trouvé cette situation-là, j'ai dit deux choses. Nous sommes dans une position difficile. Je pense que d'ailleurs, vous avez contrôle l'inspection du travail, maintenant dans le cas. Je parle sous le contrôle du DRH qui vient du ministère du Travail. C'est la vérité. C'est la vérité. En revanche, wala boog par contre j'ai demandé à ce que nu mettre en place un plan d'absorption progressive donc de ces de ces de ces prestataires là en fonction des besoins yu ñu am mais également des possibilités de l'ONAS chaque année des recrutements se feront ban nombre la quel effectif mënuma ko wax fii ça c'est des chiffres c'est des calculs qu'il faut faire pour xam nit ñi ñuy jël mu toll mais faites attention directeur général bu ñëw bu ko neexee mën na mettre un terme mën na mën na arrêter tous les percepteurs dëgg la wala dëgg directeur général bu ñëw bu contrat prestation bi jeexee mën na ko ay tout de suite yoon moo ko may et j'avais demandé à mes équipes autant que faire se peut bu ñuy arrêter ay contrat nañu seet ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw vraiment le minimum li nga xam ne mooy le vraiment le minimum li mënta ñàkk deux ans trois ans maximum dépassé quatre ans xëy na nañu arrêté ñooñu parce que mënuñu bañ arrêté mais ñi nga xam ni yàgg nañ fii def nañ fi des années te ñu waroon leen a jël te jëluñu leen nañ leen bàyyi ñu trouver une solution xool nan lañ koy régler et j'ai dit encore une fois ñaari solution rek moo mën a am soit ñu xool nu ñu leen régulariser wala ñu génne leen yóbbu leen dans un cabinet d'intérim c'est ça que dit le code du travail nga xam ne moo leen di jël di leen fay ñu mettre à disposition de de de waaye man solution boobu gënalu ma parce que loolu dafa mel na ngeen di génnee ci ONAS et mënoo jël koo xam ne def na fi vingt ans def fi dix ans am fi ay doom am fi liggéey am fi lu ne nekk ci biir kër gi nga naan ko léegi bokkatoo ONAS ñu ngi la yóbbu ci cabinet intérim ça peut être dégradant ça peut être frustrant te jàpp naa ni xaw na metti loolu moo tax j'ai demandé au DRH en relation avec le DAF sous la coordination du secrétaire général ñu examiner au cas par cas en fonction de nos possibilités budgétaires et de nos moyens financiers ñu xool kuñ ci mën a jël ñu jël la awma ci benn problème si ça ne tenait qu'à moi il n'y aurait de distinction entre prestataire ak agent permanent parce que ñëppay liggéey am na ay prestataires yoo xam ne li ñuy liggéey agent permanent dañu ko liggéey man xam naa ci dara ñëw naa fii samedi euh, samedi en tout cas un week-end j'ai trouvé un prestataire qui travaille alors qu'il n'est pas agent bu ko neexoon du ko def donc xam naa ni y a des prestataires qui sont compétents qui font du tra qui travail ni ñu ko waree di def seen liggéey ci conditions yu baax loolu am na mais li ma leen wax daal moom moo ci nekk et moi je préfère toujours tenir un langage de vérité ñu waxtaan. s'il y a des possibilités incha allah on les recrutera ñi ngi réfléchir ci ay programme yu bëree bëri pour renforcer les moyens de menace mais lu moyens yi gën a bëri. ñuy gën a am possibilité bu boobaa on va on va voir comment faire aw ma ci problème donc encore une fois prestataires yi maa ngi dalal seen xel liggéey leen jàpp leen seen jàmbur respectez vos heures de travail soyez irréprochables li ci des ngeen bàyyi ko général incha allah s'il y a des possibilités on va les examiner sur la question de terrains monsieur le secrétaire général je suis assez surpris que cette question figure en bonne place dans le cahier des doléances. Je suis très surpris. Parce que la question des terrains de la Padoie ne dépend pas du directeur général de, de l'ONAS. D'abord, nous avons bu dee yokk salaire créer prime d'assainissement euh, créer heure supplémentaire loolu DG ONAS la moo koy lijjanti mais la question des terrains n'est pas dans le champ d'application du directeur général de l'ONAS n'est pas dans ses champs de compétences donc lu luy war a bokk ci biir carnet cahier de doléances en revanche en revanche c'est le directeur général lui-même moo jël engagement devant son personnel au vu de la situation critique ak des difficultés yi nga xam ni observé naa ko ci surtout ci terrain yooyu te ma xam ko bu baax a baax man jël engagement jël dossier bi ne danaa ko porter ba trouver ci solution insha allahu taala donc ça c'est à un titre purement personnel c'est le directeur général de ONAS qui le fait pour son personnel nga xam ne ay njabootam lañu et loolu ce n'est pas le moment xëy na ñuy wax li ñu ci def ce n'est pas le lieu je le dire waaye ñu ngi ci def ay jéego ñi ngi ciy waxtaan ñi ngi ci war a waxtaanal léeg ma toog ak sama ak directeur wala kenn un collaborateur kilifa woo ma ñuy wax ci affaire Patte terrain Patte d'Oie plusieurs fois je dis bien plusieurs fois donc dama bëgg syndicat bi ngeen rassurer le personnel de ce point de vue là ce n'est pas une question qui relève de la compétence du directeur général Mamour Diallo déedéet ñeneen ñoo ko yore waaye danaa ci ni ma ciy doxe nii tey noonu laay continuer di ci dox te am naa yaakaar ni terrain yi de ONAS dana ko jot insha allahu taala parce que ba tey kenn waxaguma ne mënta nekk je ne sais pas si je me fais comprendre ba fi may wax ak nii kenn waxaguma ni loolu mënul nekk maintenant c'est des procédures c'est des c'est des c'est des c'est des situations qu'il faut gérer avec les autorités compétentes ba trouver les solutions qu'il faut au bénéfice de tous donc loolu maa ngi ci tey maa ngi ci ëllëg te toujours ci laay nekk parce que xam naa ni intérêt personnel bi la njëriñ bi la te dinaa jël sama kemt lay kattan waaye loolu du luy bokk ci cahier de doléance danaa ko nangu nag ànd se ko mais c'est le c'est le constat que je fais alors cela dit wax ngeen li ngeen bëgg ci man li ngeen di xaar ci man may leen man ak may itam waxee li may xaar ci yéen ndax bi may tàmbali sama discussion sama sama allocution wax naa leen ni discussion bi ñaari sens lay am syndicat yi dinañ wax li ñu bëgg directeur général wax lim ci man li ma mën wax naa ko te incha allah dinañ ko def et d'ailleurs y pas de secret parce que tout les en tout tous les mois les délégués du personnel se réunissent avec le DRH et dañ may rendre compte de façon régulière ci li nga xam ne moom la ñuy def et lu ci am blocage incha allah dan danañ ko danañ ko danañ ko lever kon li ci kanam raw li raw li bët